C'est pourquoi à chaque fois, les équipes, on vous dit d'observer. Il faut tout le temps suivre. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Aïcha, c'est parti. Le temps est compté. Attention, Régie. 5 points à gagner. Bravo. intelligence concentration amul jàpp amul jàpp maa ngi gis amul jàpp amul jàppe Ousseyn Mbaye noir fumier yi doo dindi balaa ngay daal <laughs> non non non loxo bi bàyyi loxo bi déedéet déedéet mu loxo de acca deux ici acca doucement doucement

doucement consent ak eh, amul jàpp raja amul jàpp raja dindi na déguisement bi moo sol bu rose bi amul jàpp doucement amul jàpp raja sa na waaj ñànku nànk ci ginnaaw il faut la calculer amul loxo amul loxo ñànk amul loxo voilà doucement amul jàpp amul jàpp doucement doucement attention 1 minute 30. Bravo. Ah. C'est très serré. C'est très serré pour l'équipe de la 2STV. Vous sautez par Aseni, elle est là. Jusque saut. Waaw, Diarra. Diarra Dembour. Soxna Diarra. Soxna Diarra. Ak Bousso. Ah, ñaari Diarra yi. Ñaari Diarra yi dañoo toppante ni ñëw. Waaw, acca ci ginnaaw, ci ginnaaw. bravo. eh seen bal bi naaw na. ay ci dem leen. ah ah bàyyi leen loxo yi bàyyi leen li ngeen di tëggal. bàyyi leen li ngeen di tëggal. aja aja Adama sàcc nga dégg Adama ñëwul tey. waaye nag dee la yàlla xanaa seet am lu jaar musuma gis ci bi sëy amul loxo amul loxo amul loxo ci bi ah. sëggal parce que jibin jaar mais mais mais DSS day def lu ne. soo DSS mën na lu ne. ah attention. deux minutes trois points bravo. on remercie Paco Wane.

de Ouzin Mbaye eh téye leen téye leen non mais foog ngeen tooy bu leen éviter tooy. il faut ngeen tooy ça fait ah. partie du jeu. voilà faut pas éviter. bravo de la 2STV c'est plein. ayca on court ci suuf ci suuf ci suuf ci suuf. raja ci suuf raja ci suuf bàyyi naa ko mais Diarra. Aïcha. très bien très bien. l'équipe de la 2STV Jibi ah, ah, ah, zigzag. zigzag zigzag. zigzag ci ginnaaw. non non non eh eh retour retour eh Ousseyn kaay ñëwaatal da ngay ci suuf ayca bravo la 2STV bu leen fàtte. zigzag. mais tonse am lii dafa garaaw. bravo attention attention. chef coach yëkkatil leen gaawal gaawal. tey du ngeen reer. du lekk ci dibi bi tey. waaw. Paco wan la ñuy ci dibi tërim. Aïcha Diarra. très <laughs> jaaxa sak jaaxa sak jibi <laughs> jibi tegal yaa ngi miir rampe rampe rampe nag il faut les surveiller il faut surveiller l'équipe de la 2STV coach ci suuf raja ci suuf waaw raja dugal dale dale dale ayca dugal raja dugal da gaaw da ngay toj benn ballon eh arrêté bu eh taxawal taxawal dukure dukure taxawal taxawal taxawal dale taxawal taxawal taxawal taxawal taxawal non non sumi leen seen daal yi déjà sumi leen mais fii dafa manqué ndox sax non def leen nag dugal seen daal eh sotti waatal ndox sotti waatal ndox sotti waatal ndox fii fay gaawal daw daw daw daw daw daw daw bravo daw daw daw Bravo encore la 2STV. La 2STV. Jol jol jol kay jol. waaw. <laughs> daw daw daw daw Ousseyn dindi Kawasi. Ousseyn sumil Kawasi. daw daw daw attention. ça va dantooy. aca aca eh, aca dawal dawal dawal dawal eh, dawal dawal. ayca daw daw doucement daw daw. aca Ousseyn Mbaye Ousseyn Mbaye waay. Ousseyn dawal dawal. dawal dawal c'est terminé. l'équipe de la. stv l'équipe de la stv très bien. toujours